Yêu là bơ cứ à, là nắp măng yêu à, là bơ cứ à, là nắp măng à, nghe cái mơ ghét mọi kỳ này sự thứ ra nghe cái mơ ghét mọi kỳ này muốn nhớ Keke mơ gel mơ ki ngơ nắp yêu Keke mơ gel mơ ki lấy xét lô Yêu là gâm Yai ki mơ nắp man Yêu là khăm Yai ki mơ vô lù Yêu là gâm Yêu à, là nắp man Yêu à, là yakar dầu là ua lu để cái mơ gel mời kỳ lây rót nal để cái mơ gel mời kỳ lây đun đel yêu để cái mơ gel mời kỳ lây mũi nhờ để cái mơ gel mời kỳ lây chú rel yêu là khăm yai cái mơ nập mình yêu là cấm à, yêu là bơ Ah les la nopp man yow la Ah basuma C'est mbare sa thématique la bu may bind ni sur l'amour xam nga rek man dama direct samay wax basuma basuma mbare le Sénégal vers le changement total du système ou vers le rebobinage du système parce que je vois que les confusions sont très très nombreuses jusqu'au Burkina Faso, les panafricanistes commencent à se réveiller. Avant tout, félicitations à son Excellence, Monsieur le Président Assimi Goïta. Félicitations à Assimi Goïta, encore une fois félicitations. Parce qu'un frère est à soutenir surtout si les Africains et puis dérangés par les Occidentaux. Félicitations à M. Assimi Goïta. De la visite au Burkina Faso et de ton grand discours au Burkina Faso. Félicitations Assimi Goïta. Toi au moins, tu ne fais pas partie de la race des manipulateurs, de la race des remplacements de blanc pour un blanc, un cul blanc pour un cul blanc. Non. Il y a des panafricains, certes. Mais les cucus, comme Macron et Keket, mais il y a des cucus. Les cucus, c'est-à-dire que soit c'est la France ou la Russie. Deux culs blancs qui se discutent en Afrique. Deux culs blancs qui nous permettent, nous, Noirs africains, de mener la vie dure à nos frères africains, deux cubes blancs, qui nous permettent d'être toujours les boucliers de la France, deux cubes blancs. Ce dimanche-là, il y a des élections ici en France. Pourtant, lors des premiers tours, où, sont, où étaient-vous les boucliers Les Noirs français là, vous les binationaux qui avaient double nationalité, qui avaient la nationalité française, est-ce que quand la France a mené leurs élections, ils vous ont appelé pour le soutenir négatif Là, comme un jeune Algérien qui s'est naturalisé français doit devenir PM, le jeune Momo Bardella. Maintenant, on dit toujours depuis la colonisation. Depuis les deux guerres mondiales, 14-18, 39-45, le premier bouclier à abattre l'ennemi des sionistes qui se prennent pour des États, qui ne sont pas des États, mais c'est des sionistes. Ils ramènent toujours le peuple noir pour leur mettre un premier bouclier pour défendre qui les intérêts des sionistes occidentaux, mais pas les intérêts de la France. Car ce que fait le gouvernement français là n'est pas à l'intérêt du peuple français. Dieu veut la vérité. Peuple africain, vous Maliens, vous Faso, c'est bien beau de manifester devant l'ambassade du Sénégal. Moi, je ne dirai jamais non. Parce que nos ancêtres sont là. Il y en a qui ont vécu l'histoire jusqu'à présent. Il y en a qui ont vécu avec Thomas Sankara jusqu'à présent. Et lors de l'aube des indépendances, Senghor, au fait Boigny, ils ont préféré trahir Modibo Keita et Sékou pour voler de leurs propres ailes. Dieu voilà la vérité. Ils ont manifesté au Burkina, mais pour quelle cause Pour un gouvernement qui a fait 100 jours. Est, après trois ans de pouvoir au Mali, il y a des pas qui sont posés. Mais est-ce à 100 jours, les jeunes là n'ont-ils pas posé ces même pas. Si. Burkina, s'il doit faire dix ans avec les militaires, pour ne pas être des fanatiques ou des manipulateurs, pour avoir dix ans de blocage, un civil peut l'attraper en 3 ans ou 4 ans de blocage. Parce que les systèmes, ce ne sont pas les mêmes. Et ce qui nous est arrivé sur Barack Obama, oui, Barack Obama est là, c'est le président des Noirs. Barack Obama, c'est le plus mauvais noir de tous les temps. C'est le plus mauvais du peuple noir. Heureusement que ce n'est pas un noir, c'est un métis. Mais Barack Obama, qui a voté pour lui, c'est nous les Africains, c'est nous les Maliens, c'est nous les Sénégalais, c'est nous les Burkinabés. Ou qui a voté pour Barack Obama si ce n'est pas le peuple américain, si ce n'est pas les Américains Qui a voté pour Barack Obama Donc we have a dream. Nous tous on rêvait. Or, on n'a pas voté pour Barack Obama. On ne paie pas son impôt, on ne cotise pas pour lui. Donc, Barack Obama, si c'est pour nous, peuple noir, il est mauvais. C'est un métis. Un métis n'a pas de pays. Mais pour le peuple américain, est-ce qu'il est mauvais Négatif. Parce qu'il défendait le peuple américain. une logique là-dessus. Chacun veut se défendre. Avec juste raison. Vous avez manifesté au, au Burkina, mais sans argument. Une idéologie ne s'impose pas, mais ça s'adapte. Jeunes frères africains, une idéologie ne s'impose jamais, mais ça s'adapte. Si Assimi Goïta ne peut pas imposer son idéo, ni Ibrahim Traoré, ni Tchani, une idéologie ne s'impose pas, ça s'adapte avec le temps, pas à pas. L'africanité que nous réclamons, la majorité sont des pingouins. La majorité, vous êtes des pingouins, je vous la vérité. Vous êtes des pingouins. Et vous savez qu'un peuple qui souffre, pour le manipuler, c'est facile comme de l'eau. Et la manipulation, là, il faut que ça s'arrête. La manipulation, là, il faut que ça s'arrête, cher peuple africain. Pour le cas du Burkina Faso, on va rester passer. Mais ne pensez jamais que... Il n'y aura pas de rupture au Sénégal. Ne pensez jamais ça, jamais. S'il n'y a pas de rupture, je vous donne une garantie. S'il n'y a pas de rupture, il y aura coup d'État qui va suivre l'AS. Non, il y aura rupture. S'il n'y a pas de rupture, il y aura, il y aura coup d'État. Donc il y aura rupture par force. Vous n'avez jamais entendu coup d'État au Sénégal. Mais si l'État-là ose trahir la mafia africaine, il y aura coup d'État. Mais aussi, ça ne s'imposera jamais. Si tous les généraux étaient d'accord avec la France à cette heure-ci, à cette heure-ci, le Sénégal n'en serait pas là. Le Sénégal doit être rebobiné, mais pas changé. Ramenez votre véhicule c'est le mécanicien, il doit changer la batterie. Vous poussez la batterie, ne marche pas. Vous changez une nouvelle batterie, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas C'est la bobine. Peuple africain, cette génération sénégalaise-là, là c'est qu'il ne faut pas calculer les États. Nous ne calculons pas les États. D'abord, on calcule nous, le peuple, entre nous, Africains. Entre moi, Malien, Sénégalais, toi, Malien, toi, Burkinabé, toi, Nigérien. On calcule entre nous. Qu'est-ce que c'est que la révolution La révolution vaut quel prix Où sont les pays révolutionnaires Où est Venezuela On y va. On y va vers la rupture. On y va vers le changement. Pour se changer, il faut accepter d'abord la souffrance et se la fermer. Pour se changer, il faut accepter la souffrance et se la fermer. Est-ce que le Sénégal est un peuple qui est prêt à se la fermer Négatif. Le Sénégal n'est pas un peuple qui est prêt à se la taire. Négatif. Le Sénégal n'a pas grandi dans une révolution. Négatif une révolution, ça ne dure pas trois ans. Ce n'est pas entre 2021 et 2024 qu'on réussit une révolution. Je veux la vérité. Ce n'est pas en trois ans qu'on réussit une révolution. C'est des manipulations. Si c'était ça, les panafricanistes, eh, où est Modibo Keita Il a commencé à parler de l'africanité quand Maintenant, allons, retournons. En 1946, où est Victor Sumemba Diatta qui a formé le premier parti démocratique africain, MFDC Où est Victor Sumemba Diatta le système l'a tué en 1947 par balle, en plein Dakar. Vous, Maliens, savez-vous que c'était le premier parti africain a été formé par Modibo Keïta Non, pas par Modibo Keïta, par Victor Chimemba Diatta, un Sénégalais avec Modibo Keïta. Savez-vous ça Quand il a su que le parti là était pour l'AEF, c'est Modibo Keïta qui a formé... Non, c'est Victor Chimemba Diatta qui a formé le premier parti africain mouvement des forces démocratiques de la Casamance, le premier parti africain, a été formé par Victor Sumemba Sinon, tous les partis politiques de Modibo Keita, Senghor, Lamine étaient un parti de l'Afrique occidentale française. Il faut des fois retourner dans l'histoire et vous dire la vérité. C'est la manipulation là. On cesse, on s'arrête un peu. Nous, nous sommes là, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Professeur Niamsi, est-ce que tu savais ça que le MFDC a été formé en 1947, ce qui a valu la mort de Victor Soumemba Diatta, le premier dirigeant africain qui a dit non à l'Afrique occidentale française. Étais-tu au courant de ça, Papa Niamsi Non, tu n'étais pas au courant de ça. Toi, vous, toi, si c'est toi, c'est Kemi vous, c'est Kemi Seba, Nathalie Yamba... et les Niamsi. Vous qui traitez Ousmane Sonko de traître panafricaniste. Mais qui est Victor Sumemba Diata Quand Victor Sumemba Diata était d'accord pour être avec l'Afrique, où était le peuple camerounais Où étaient vos dirigeants, vous, Cameroun Où étaient les dirigeants maliens Où étaient les dirigeants tel, tel, tel, tel, tel Modibo Keita, il a compris en 1956 que Victor Soumemba Diata... c'est après l'assassinat de Victor Soumemba Diata... que Modibo Keita a compris qu'ils sont en train d'être trompés. C'est après l'assassinat de Victor Soumemba Diata... que tu a compris. L'histoire est là. Maintenant, pour dénigrer l'histoire, ils vont vous dire que la Casamance ne fait pas partie du Sénégal. Pourtant, vous avez l'histoire devant vous. Quand on vous demande de répéter l'histoire, vous refusez. Non, non, non, Victor Sememba il fait partie de la Casamance, oui. C'est ça que vous croyez. La Casamance ne fait pas partie du Sénégal parce que c'est ça votre jargon. C'est ça mon jargon à moi. Mais si aujourd'hui Ousmane, Ousmane, Sonko vient de la Casamance et il est Premier ministre du Sénégal, donc la Casamance fait partie d'où Ousmane Sonko est fils d'où de la Casamance ou du Sénégal Vous les panafricanistes. Vous, la, panafricaniste. la terre d'Ousmane Sonko n'a jamais été colonisée. Hein. C'est Emile Badian qui nous a donné notre indépendance parce qu'il était d'accord avec Léopold Sédar Senghor. Mais Ibou Diallo, il n'était pas d'accord avec Léopold Sédar Senghor en 1962 quand de Boigné a trahi la mafia africaine. Pourquoi vous ne parlez pas de ça La marche que vous avez organisée au Burkina, ça me fait mal. Je ne vous le cache pas, ça me fait mal. Parce qu'un régime qui n'a pas fait encore 90 jours, vous, vous êtes en train de manipuler l'opinion comme ça. C'est des manipulations. Revenons à la raison. L'histoire est là. Si vous voulez, on y va dans des lives spécial français. Moi, je pose l'histoire. J'avais déjà fait des lives. Ça fait 85 ans sur l'africanisme et l'africanité, car j'ai toujours vécu ça. Vous ne maîtrisez pas la communication mieux que nous. Dommage, nous ne sommes pas subventionnés, comme je peux, je peux le dire. Nous ne sommes pas subventionnés. Car il y a des panafricanismes financés par Bolloré. <laughs> C'est des panafri français financés par Bolloré. J'en sais beaucoup de choses, énormément de choses sur le cas de Bolloré énormément de choses sur H. H-Tex, je ne sais pas H-Tex, le fameux américano-russe là qui gère la communication de toi. J'en sais énormément de choses, énormément de choses, mais je préfère boire mon thé, avoir ma guitare et être libre dans mon esprit que défendre une cause entre cul blanc, cul blanc. Je ne remplace pas un cul blanc par un cul blanc ou des testicules blancs avec des testicules blancs ou un pénis blanc par un pénis blanc. Je ne remplace pas. Moi, ce que je veux, c'est des armes. C'est pour ça que je vous parle de la Russie. Mais ramener la Russie au Sénégal, ça va nous développer en quoi Ramener la Chine, ça nous développe en quoi Ramener la France, est-ce que la France, ça nous développe en quoi On veut des armes pour nous défendre, former nos enfants. Former nos enfants, le, faire de, vrais soldats, les déposer sur le terrain. Arrêtez la manipulation. D'abord, l'armée française sera réduite au Sénégal. Pourquoi vous n'avez pas dit que l'armée française va rentrer Les bagages des Nations Unies là, tous ces bagages-là vont retourner. À Kerndjaïlo, il y a les bagages qui ont quitté Mali. Son Excellence, Monsieur le Président Bachir Diomaye a demandé que les bagages qui appartenaient à l'armée française, qui ont quitté le Mali, doivent quitter le Sénégal. Pourquoi vous ne faites pas ça sur la presse internationale Aïe, l'armée française doit quitter le Sénégal. Nations Unies, la base de Goudiri doit être fermée. Pourquoi vous ne parlez pas de ça Et puis vous manipulez le peuple. Vous, peuple sénégalais, vous, sénégalais, on a décoré le général Kandé, tout le monde. Et tous les Saint-Syriens, sans exception, même les jeunes capitaines et commandants, les jeunes lieutenants qui viennent de Saint-Cyr, ont été décorés par la France. Eux tous sont des chevaliers de l'ordre national. Eux tous, tous les Saint-Syriens. Je signe, je persiste. Tous les Saint-Syriens, sans exception, jeunes et vieux, tous les Saint-Syriens sont là pour l'intérêt de la France d'abord, avant leur peuple. Tous les Saint-Syriens, sans exception. Et pourtant, nous, au Sénégal, c'est les Saint-Syriens qui gèrent notre armée. C'est les Saint-Syriens qui deviennent... C'est Ablaï qui a changé ça. Mais sinon, au Sénégal, si tu n'es pas France, tu ne peux pas devenir chef d'état-major. Parce que toi, à partir de Saint-Syrien, là, c'est toi qui rencontres à la France, direct. Est-ce que vous saviez ça Nous, nos hommes de tenue, vous savez, nous, nos généraux, ça devait être qui Les Tchessois. C'est ce qui vient du la Dior. Ça, c'est des vrais hommes. C'est ça, nos généraux. Mais il a été formé en saint C'est un syrien Va voir dans ses documents où son CV. Il a été décoré au titre de chevalier de l'ordre national français. Donc, en cas de pépin, il va se retrouver ici pour défendre qui Sa patrie sa patrie mère militaire. On ne voulait pas rentrer dans les secrets, mais maintenant on y va pas à pas pour vous montrer que signifie. La Russie, si ça te forme, vous voulez panafricanistes. Assimi il est décoré par la Russie, non Faites appui sur ça. Eux tous, ces mes jeunes soldats. Eux tous, ces mes jeunes. Je ne parle pas pour ça. Moi, je suis un conseiller de thé, de guitare my vibes. Je suis dans mes vibes. Je ne roule pas pour quelqu'un. L'humain n'a pas de valeur pour rouler, rouler, pour un humain. Je suis tombé amoureux de quelque chose d'invisible. C'est pour ça que l'humain n'a pas de valeur pour rouler pour un humain. Je peux être conseiller de quiconque. Mais quand tu me proposes salaire, je sais que tu es un con. Mais pas quelqu'un que je dois conseiller. Tu es un con. Je ne conseille pas un con. Africain. revenons à la raison. Vous parlez, on peut parler. Tout le monde a sa langue pour murmurer. Ce qui s'est passé au Burkina, ça ne regarde que vous. C'est des incidents. Mais le Sénégal va être rebobiné. Un rebobinage ne se fait pas en 90 jours. Impossible. Ça, C'est la manipulation. Il faut arrêter. On en a marre. On avance maintenant. Je ne voulais pas parler de Père Niamsi, mais on est là. Moi, je ne suis pas payant. je ne me remplace pas un cul. J'ai un cul noir, donc je veux des culs noirs dans mon pays. On va le faire foutre. Pour ceux qui regardent Fadel Baro, Gisna Fadel Baro, mais Fadel Baro, xam nga lan moo ça sama gars booy bi jóge Casamance ñëw xewul dëkkul fenn ñëw jël réew mi jiite ko nga ne gars yi populisme la ñuy def ah lii mooy populisme kon ñun yaanaamaar luñ doon def pëpp duul lañ doon def xam naa xam naa pëpp duul xam nga populisme ak pëpp duul bokkul bu la neexee toog di pëpp di duul say duul rek di taqal ku la neex lii mooy rupture président du toog di buur di bimmi déedéet gan xanaa boo ñëwee ci gox di nga dem nuyoo ji wane ne maa fi yegg si loolu la Bassirou Diomaye Faye def kes kilo qu'il wat sa what's happen what's cessé lu xew Fadel Barro tey maa la gis nga wax de ba ne gars yi liggéey gu ñoog dañuy liggéey dañoo bëgg a dugg whatsapp gars yi ñii hmm. du ñu waa kër Bolloré liggéeyuñu ak Bolloré xamuñu fu Bolloré nekkee mënu leen dem ba Côte d'Ivoire coup d'état am Burkina ngeen dem Côte d'Ivoire di ngang di wax si Bassirou Diomaye fay takkal ñu la te ñun sekkuñu ak ñoom lenn sekkuñu ak Côte d'Ivoire yéen yéen ni ngeen sekk ak seen affaire association de presse affaire fausseté yooyu ça ne regarde que vous opération buuxlu bi boo ko falal boro fii dafa xat ay jigéen ñi am ay ngantam dofit taata fi nekk même bu dee ñetti place taat yi ñii ñaari xàpp yi ma gis nii non tat xajul ci digënté bi tat du fi xajee dé moom kenn du fi ruux sa taat rebobinage bi nak ma ngi gis ñëpp a ngi kaas ci nomination yi nommé nañu sama waji nek nekk DAGE ministère de la jeunesse ko xamné ne sàcc la il a été épinglé mais yéen Pastef xam nga ma nomination yi maa ngi wax gaay yi duñ ma comprendre so waxé ñu nit ñi daam lu ñu xëcc eh waay yow sama waji man lima ama dàq seeni poste ñu avancé ci Pastef Ibrahima Diop vrai dorkat saatam day jóoba jóoba boo yaam gàlla grand dóor nga Sénégal yëpp nekkoon dage en même temps di gérer poste biir ministère de la jeunesse yow xanaa ministre bi xamu la wala Sonko da laa fàtte xanaa ñoom ñaar xamuñu la de non non non non non non je pense que gars yi defuñu ay enquête yow non non non non non Ibrahima Diop Ibrahima Diop man j'ai des problèmes parce que yow moom buñ la namee rek dafa fekk ne. y a quelque chose qui a échappé yow Ibrahima Diop te loolu man maa si jël dossier spécial parce que sama boy yi live yëpp kooku moom dossier spécial laa si jël Ibrahima Diop munoo nekk daaj ministère de la jeunesse mun ta nekk saa dóorkat nga t'as été épinglé par les rapports mun nañu la épingler par rapport nag ñu lay ñëw di name bàyyi fi gars nga xam ne am nañu sa capacité yi nga am ñoo la gën a jàng gën la set te bokkoon suñu combat bi xam nga man léegi fan laa ko teg hmm? di xaar ñu namentu naan non républicain eh on s'en fout ndeyam de affaire de républicain gain dinañ fi nekk xeex ndeyu quatre ans ñii di ñu xeex ñi jàng comme ñoom bokk ndeyu éducation nationale bokk ministère de la jeunesse comme ñoom ñu leen ñoom ñoome ñoom des imbéciles yoo xam ne dañ doon fay pour ñu ñuy xeex ñun fay seen i nervi ñu leen di nomee ñu noppi du fi amee dañuy wax jar ñu mbëkkante saagante ndey du mujj ndeyu fenn leer laa leen wax du mujj fenn dëkk bi moom mamaay xoola dañuy mën a équilibrer dëkk bi booy yi ils ont les diplômes ils ont le charisme ils ont les capacités on ne va pas renommer des imbéciles suñu kaw du fi dal Basirou xaw ma ku def nomination xaw ma Khady Diop Dieng xaw ma Mamy Diop Dieng je m'en fous de ça kii mënuñu ko nommer parce qu'il a été épinglé par des rapports voilà kuy mer na nga tàcc mbaa nga yuqat allez vous faire foutre ngeen gars yi dañuy jékki-jékki rek bëgg a ñëw di nommer soo waxee ñu naan le ni, xam nga lii lan rebobinage batterie bi yàqu na léegi ay woon nañ dem jël nañu bobine bi xam nga lan moo gënoon yomb dem ci mécanicien bi wala ci pièce détachée jënd bobine bu bees ñëw teg taalaat sa oto tàkk mu daw mais boobu wóorul jox ko mécanicien bu ay Jules électricien nga koy jox moom mu defal la mu rebobiné la mu defal la rebobinage bi bu la ko defee nga tegaat ko sa oto bu tàkkee ci lay ëpp doole ndax xoola fil yi mu koy rëbëbine ak fil origine yi si nekkoon bokkul origine bi c'était commercial mais kii mën na ko rëbëbine waat Bassirou Diomaye Faye si loolu la nekk rëbëbinage rëbëbinage nag y a des risques de rëbëbinage y a des risques mën na ëpp doole batterie bi wala ëpp doole circuit oto bi taal ndayu oto bi munoo ñi fi nekk ñëpp Macky Sall teg la fi nga bëgg yow ñu amal la gratitude négatif nga xam ne ne yàgg-yàgg dañuy tëb kon balaa maa tëb yàqal la père secret yëpp quand doo nekk di nominé ñu leen seetaan nii de négatif ñu ne lan la nomination de Ibrahima Diop a été annulée par le ministre de tutelle al ah <laughs> kii kañ ay

ndax ñoom dañuy rendi jeunesse bi ba pare buñ ne fédération athlétisme bi ñu ne la demal ministère du sport ba pare jël ay financement athlétisme su suuf ñii tey ñoo rey suñu on avance pour préparer élection yi demee Ziguinchor dañ ko war a rebëbinewaat ndax dañu amoon ba bëbin bu doon daw ba si yàgg fil ba dagg dem ci gouvernement bi génn Ziguinchor dem Sénégal mu ngi pale mooy suñu premier ministre Ziguinchor nag am na lu fa xew de suba dañuy def élection mairie opposition bi yëpp boo boolee ñoom dix neuf candidats la am sur quatre vingt conseillers opposition bi andiwuñu benn candidat à grand grande surprise Pastef andi quatre candidats waay à ma grande surprise Pastef andi quatre candidats. li xewoon assemblée nationale la Pastef defaat te sax du wax du sax Pastef xam nga ñan la yow mooy ñamaleen ne woon rey nañu gars yi ndax dañuy yeewi ñoo xam ne yeewooguñu waa yeewi askan bi ñoom ñooy waa yow. candidat yi Aïda Bodialo mooy ki fa Sonko def pour mu remplacer ko keneen ki booy Alsane Diedhiou la moom mooy vice coordonnateur bu université Assane Seck keneen ki Djibril Sonko moo nekk trésor Bassirou Kol yi moo nekk GPS quatre candidats la ñu am te ñu ne ñoom ñëpp a far déjà ñoom quatre candidats yi ñu ne ñoom ñëpp a far par force dinañ dem deuxième tour waaw wala déet mais léegi ñoom ñëpp a far sur quatre candidats ñoom ñëpp bokk parti battrandoo élection léegi ñoom ñëpp dem nañu rang dispersé kon déjà mairie ba tas na liggéey bi dootul dox même bu kenn kese faloo liggéey bi dootul dox ndox ku nekk yaa ngi calculer maa fi waroon nekk déjà yéen yàqal ngeen ñu yéen déjà déjà vous avez tout vous avez merdé Linnan, vous avez merdé vous avez merdé même deux candidats bu quatre candidats ci ne xam pas, bokk coalition une ngeen bëgg ay politiciens ngeen Sonko moo ñu Sonko moo ñu ku tëflitam laal sax nga foog ne mën nga nekk maire Sonko moo ñu tooñ ku ko xam sax foog ne mën nga nekk directeur de cabinet Sonko moo ñu tooñ ku ko xam foog ne mën nga nekk président Sonko taxoon ay ñoom Malick Gakou ay Déthié Fall ak ay Pape Djibril Fall ñëpp di rêver nekk président de la république Sonko moo ñu tooñ foofu. Sonko moo moo tax Sénégal xun xuneeti xamatuñu seen xeet Sonko moo ñu tooñ. Sonko tax saw katulal yi dañuy saw ba pare ne dañ doon jooy sawuñu Sonko moo ñu tooñ Sonko tax puub katulal bu xëy rek fag boppam directeur de service Sonko moo ñu tooñ tey ay bartak ay ñu bëri tey bu ñu faloo tey Sonko tax loolu nag lañ lay ñaan yow bu mu la dalati élection même ay joxelis neutre si bàyyi ñu ñun sur le terrain bàyyi ñoo ko sa ñii léegi ñu andil leen tendance yoo xam ne dina dinañ la woon ne sa gars yi ñuy naa féq ak ñuy waxi dëgg fii rek si diaspora bi soo ma weddee législative organisé ko septembre ñu andil leen yeneen bruit ndax dafa am ñoo xam ne dañuy bëgg daw gaaw photo ak Sonko wala maa jege Sonko rek da ngay ñëw ñu fal la te gat xamoo ko tappa de charisme gat nekkul sa bopp duul day rajaxe nekkul sa bopp bi gat ba gat booloo jeex

t'as pris des ignares ñoo xam ne dañu rëy la mi ñeme la jege rek ñooy taxaw tey di xoggalu ko ah, Sonko Sonko diaspora bi du demee noonu léegi ku nekk yaay jëlal sa bopp ki nga woolu def ko sa député nga def ko sa député pas benn Alioune Sall moo ñëw nekk sa mannequin taxaw fee di soxoxoxoo jël benn booyam yóbbu ko solo yi muy saaga suñu journaliste ngeen ñëwaat naan ñu kii lañ ñu tànnal kenn du ñu tànnal kenn fii France ñun ñoo fi nekk dinañ ko gérer suñu bopp. loo leen ci mën mën nañ ko xam nga sof mu ngi doon live ñu bari naan mënul dara eh mënuluñu dara anu mu tay doolu leen xam nga sénégalais xam lan mo bon ci sénégalais bay leen xébaaté waxuma la burkina dé mali niger nigeria yépp mën nañ yëngal nday consulat sénégalais yépp population yi xey dem fa suñu link graw c'est que yeen sénégalais xam nga luma metti da ngeen di gis ñit di wax rek ngeen commencé di wax yeen ni non ki ni no tay mu ngi ni tay biñu marché tay burkina yeen ñëpp a mer pourtant da ngeen fagoon du dëgg mënu ci dara mënu ci dara da ngeen xam lu ñuy liggéey da ngeen xam ñu ñu amal link dangeen xam ñu ñuy waxal da ngeen xam suñu capacité fu mu yegg nit boo xamul capacité fu mu yegg su waxee woo ko su suuf waxtaan ak moom wante bul ko imposer fii koo imposer mu woon la jikkoom yaru dafa baax si loo gis kenn gënu fi réew kenn saf puub bañ puubee fi am wala bëgg a day day point kenn gënu fi réew kenn fokk ñu respecter africains yi tuuti parce que yéen tam boo leen di saaga ndey ci live yi man ku ma yónnee ma sa vidéo mais mais loolu ñu bëgg ma kay traduire di fen non non il a dit ça c'est bien dem ko eh il a insulté tel tel tel il a insulté tel tel tel mais c'est des jeunes bâtards ne les répondez pas mais ñom africains tam dañuy wacc seen niveau tolloog yeen parce que c'est des jeunes comme vous ñoy ñëw di répondre tay patriote yi te man am na si booy xam té kat patriote lo wax ñu la infiltrer ñoo dàq dul ndayam Sénégal lo wax ñu la infiltrer ya koy def da ngay ñu dul amna ci si yo xam max ñoma daan ànd depuis ci combat bi c'est de vrai patriote def nañu sax prison te ñom ñoy gën tay di saganday tay tey panafricain ngeen bañu traduire ko te ka dañuy saganday ba paré suma xex ñu naan ma grand infiltré né na leen kuma ma waxati infiltré ma def nonu sa nday kuma ma waxati infiltré def ni ma def nonu nday man kenn duma ma ci lu ñak nday fayda yow ma xam boy xam leen carrément xam leen face à face xam seen degré fi mu toll ci parti di saganday africain ci tiktok bi ak yenn tey ngeen bëgg naan ma c'est des infiltrés xanaa yéen ay ay infiltrés imbéciles que vous êtes moment yi nag xam nga lu ma ci métti waa APR ñooy commencé di wax si réseau bi waa patriotes yi con yi nag ñoom ay infiltrés leen ndax waa APR tam ñu ngi ci opération buur xulu bu metti toog leen di xuloog saaga ndey rek toog leen topp ci xuloo beeg saaga ndey bi opération buur xulu bi xoola day yomb ci ñu yaruñu lu la réew xañ ku yaru dégg code am nandite da koy am facilement sa kaw ñun looloo ñu commencé dal loolu laa commencé comprendre ba pare soxorante bi seen biir foog ngeen bokko Azoura Fall man maa ngi sa kanam tey maa ngi sa kanam kanam ginnaaw suba maa ngi sa kanam sa côté droite maa sa côté ku wax si yow ma tëbal ko ma Yacine Issa Barada damay tëj bag bi li ma wax xale yi ñu ngi ma naan papa fu ñu toll papa man leen man bac bi doon sama objectif ndax fàtte woon naa bag bi bu ñëwee baax na bu ñëwul baax na jàppale leen xale yi ngir yàlla li laay war a suuli Ziguinchor ñu defaral ma seeni sandwich gars yi jàpp leen si balaa famille di leen jaay sandwich bu ma subventionné sandwich yi mën nañ ko jaay sandwich ak jus 300 man ma fay 400 francs yi des bu buñ ko subventionné wul nag damay bàyyi xale yi defee seen bac seen xiif luñ ci góobe gar école yi ak sama daara yi jàpp leen ci nawet bi yàq na tas na lépp te nawetu maam yàlla bi xam nga waaw xéwal lañ ciy wax ndax kenn mu ci wax lu ñaaw yàllaa moom ngelawa moom moom yom tas na booy mais alhamdulilah village am nañ solidarité ñëpp a wóolu ñëpp ku nekkay dem fanaan kër ku la neex bu ñu xëy dajalewaat xale yi ñëw tegu mais nag ren lu bees dafa am fa xale jàng ji yalwaan fa xale jàng ji yalwaan

ku ci mën jàpp na nga ci jàpp te yàlla rek a tax ndax ci école éducative yi bees laay nekk Ziguinchor tey cent vingt deuxième village bi maa ngi quatre vidéo yaa nga xam man ku ma jël su suuf bëgg andi sa apport ci daara ji laa soxla ñu ma demal sur place yéen ñi nekk ñooñu Sénégal nag investisseurs yi yéen ñi nekk noonu Sénégal barki Serigne Touba yéen laa gën a soxla ngir yàlla yéen professeurs yi yéen waa jumaa ji yéen ñi di gérer axlu islamique yi yéen ngir yàlla dama leen soxla demal leen ma ci daara ji nekk Touba defar ko nawet bi dina gaañ xale yi dama leen ma Ziguinchor si daara ji gasal ma lépp defaral ma ko sinon nawet bi dina gaañ xale yi les enfants souffrent là-bas ngir yàlla jàppaleen ma ci xale yi jàppale leen ma ci xale yi li lay war suuli jàppale leen ma ci xale yi xale yi seen daara yi nawet bi tas na lépp dama defoon ay mur ci kaw ay critinique moo fa nekkoon ngelaw bi naawal na lépp lu si waay man jàpp na ko xeeb yéen ñi nekk Sénégal dem leen jeeral ma loolu man ñu ñooñu laa koy sas ñu nekk sur place parce que moment yi lu jooni jooni jooni lañ soxla soit dañ fay teg ay seng gasal leen douche génnee beneen néeg vite fait lu jooni jooni jooni jooni la ñu soxla pour relever daara ji jàpp leen si tey yàlla rek a tax sama projet bi ma tegoon Ziguinchor pour les filles mères là ak fii yi nga xam ne war u ñu dem vacances ñu waruñu mindaanu

ñu teel leen jël en charge parce que état warta mën jël lépp en xam nga man lan lay bañ na Sonko def na Sonko def maa bañ mun ñu def lépp en charge mun ta nekk ndax d'ici si ans ñoom mun ñu jël lépp en charge si cinq ans laa la wax dañuy teg ay genoux mais ils ne peuvent rien aboutir d'ici cinq ans même procès yi ñuy waxee benn procès du yegg di si ans kon ñun nag diaspora bi ñu ci daan tegee suñuy loxo di xeex nañ ci teg suñu loxo jéem a développé secteur par secteur secteur par secteur man Casamance laa moom fa laa bëgg développé kon fekk si leen ma fa kañ ñu développé ko. liñ daan jàpp si combat bi léegi nag nañ ko jàpp ci suñuy doom ngir ñu am avenir ëllëg xale yi am nañ ay doom ba pare c'est trop tard léegi nañ leen protégé naka mbindaanu bi na dagg parce que da nga fay bàyyiwaat ay xale yu am 6 mois ñuy souffrir à Dakar nga dem di liggéey ci ay 50 000 am 150 000 ñu tasaaroo ko. ñàkkal sa bopp fay fayda ñu lay tëddeewaat foofu ñenn ñi patron yi dañ leen di violer man loolu lay xeex programme bi contacté naa samay collègue EPS ak ñeneen ma grand dina dox man leen yàlla baax na su ma amee ay partenaire xale yi chaque fin de mois bu ñu leen di fay dañu leen di yóbbu weekend cap ñu toog ak ñoom bàyyi leen ñu développé parce que Ziguinchor loolu yëpp ça manque allez yi amuñu loisir moo tax sexe la ñuy fowee kenn mënu dara ils n'ont pas de loisir ça ne fait que danser chanter mais ça ne génnee leen ñu toog ñoom qu'est-ce ñi kese góor yi kese pour mën a delloo si waat seen xel xam ne ñoom ak xale yëpp a tolloo pour faire des filles mères là des responsables on leen ne sa doom bi nga am waru la yakal sa jang sa doom bi nga am waru la yakal sa avenir sa doom bi nga am waru tax góor yëpp la sa doom bi nga am waru la yakal sa avenir man ci xeex boobu laa nekk saa yi doon am élèves yu am 11 ans ñëw am seex ma yore leen sama kër xam mettit bi ñuy dund munu ma nekk Sénégal di leen satisfaire nekk kaaw xeex ba xeex bi sëngeem nag xale yi bëgg a commencé ba léegi ñu may woo papa yaa ki manque mosuma dal mais révolution moo ko jaroon te si c'était à refaire ma sacrifié waat ñëpp demaat sama révolution jeune ba din pas avec ça lu si waa jàpp na ko xeeb jàppale leen ma si ngir yàlla jël leen ma susuuf je vous donne la liste et les demandes des jeunes fi def naa ba dama enregistré ku nekk ci 00 33 7 58 17 95 96 jàppalante ñu dimbali xale yi jàppalante ñu andil xale yi loxo bu gudd DER financement fay la mais xale bu am 14 ans ak doomam boo ko bëggee financé fay ko yëf yi naxa sa xandang la man defuma loolu man damay jox xale yi quarante euros par weer fii ñun ñëpp ko war a mën mën jàppale xale Casamance man jàppale xale Louga mën jàppale xale Ndar ñu si am doom yu ndaw ñu gérer leen 40 euros par weer 50 euros par weer gars yi ñun ñëpp ko mën jàpp len te ma sama projet défar sama programme téye sama dom téré len planning familial téré len lu bëri si aduna pour mën len dimbali ëlëk basuma basuma mbare su ko iba famana dia rastafara sénégal sama rew len rek ñu mën dimbali xéxandaw